dañuy wax ba nga yaakaar ne sax ñoom ñoo la gën a xam lan mooy programme euh, président Macky Sall nee nañ gisatuñu léegi dugg si boutique ñu ne la ceeb amatu fi wala dafa manqué wala diwlin dafa yokk et cetera loolu yëpp ñoom gëm nañ ne ay ngëneel ay mbaax yoo xam ne président Macky Sall indi ko si réew bi retu na jàmm boo xam ne def na ko donc dama ne président Macky moom moo liggéeyal boppam campagne bi dafa liggéey ba jox ñu ay arguments yoo xam ne tey jii dafa neex wax population bi kon loolu tamit li koy gën a firndeel rek.

rawatina ñi nga xam ne dañ leen war a yóbbu bitim réew ñooyu ñëpp tey jii première dame taxaw na si te yaakaar naa ne lu mel noonu plateau médical bu toll noonu nga xam ne amul fenn si biir mbaaw amul benn dispensaire bu am matériel bu toll noonu mu indi ko ba suñu tànk ne ñu dama leen koy baaxe si kaw yërmandeem defe naa ne ku mel noonu war nañ ko jàppale jàppale ki nga xam ne mooy président de la ndax yéene bi am Sénégal wax dëgg yàlla foog naa ne. xajul mbaw te xajul fenn waaye fi ñu toll nii defe naa ne du ñun waa mbaaw soo ñoo koy wax waaye même suñu naataango politiciens yi nga xam ne ñu ngi si département Pikine euh, dañoo ñee ci liggéey bi nga xam ne tey def nañ ko ñeeñu si àndandoo bi nga xam ne ànd nañ ko ñeeñu si li nga xam ne tey jii doo dox ba jàkkaar de opposition tey bu am solo am na biir mbaaw kon loolu aussi dama si euh, remercier ñi nga xam ne ñoom lañ àndal si liggéey boobu muy Ablaye Pouy de le maire de Mbaw.

dafa mel ni mbaaw dafa nekkoon terrain boo xam ne lu bari manqué woon na fi ñu bari ñu ngi doon toog di xaar di dund yaakaar waaye tey def naa ne bi ñu gisee ñu waxtaan ak ñoom ñoom ñu wax ñu tamit li nekk seen xol gëm naa ne euh, yàgg nañ bëgg président Macky Sall euh, ñu ngay fasante moom couleur boo xam ne dañ doon xaar occasion mu mel ni jot euh, ñu wan ko rek naka lañ ko bëggee ñu wan ko aussi naka lañ ko mën a ànd ak moom jàppale ko si politique am naka lañ ko war warmal wormaal bisu 30 juillet te jox nañu rendez-vous aussi jox nañu seen kàddu te ñun am espoir ne euh, lool ñu waxate ñun ne ko def inshallah